jërë ngeen jëf dal leen ak jàmm mbokk internet yi di amaat mbégte ak kontaante di leen dalal seen chaîne YouTube DKR 221 tey jii dañuy koy faral comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk ak lépp loo xamante ni xibaaru politique la wala sax lépp luy actualité si biir Sénégal dinañ ci waxtaanee ak li nga xamante ni mooy élection législative yi nga xamante ni ñu ngi koy dëgmal fii ki weer rek dinañ ko amal ak lii di xew fan yi Sénégal mooy affaire violence affaire agression ba ay meurtre di si am ñu bëri di si ñàkk seen bakkan jamono tàng jër biir Sénégal waaye nag lépp dañ koy waxtaanee ak sunu invité bi nga xamante ni jamono ji kenn du leen ko euh, présenté muy euh, Serigne abdu Khafor sëriñ Abdou euh, maa lay nuyu. waa di la dellu nuyu baax Xaaji di leen ñaanaat yàlla di santaat yàlla bi ñu yàlla mayaate kattan ak dal ñu ñëwaat ci DKR 221 depuis boobu léegi géej nañ cee wax waaye nag jamono moo ñu tënk rek di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñooy topp DKR 221 lépp lu ñu fi wax yàlla na nekk njariñ lépp loo xam ne wax nañ ko fi tamit yàlla na ci noppi yi nga xamante ne bi ay noppi garmi lañ daal di ciy déglu bu baax a baax bisimilah. alors Serigne Abdou tey dañuy waxtaanee wala sax dañ koy commencé waxtaan bi ak li nga xamante ni mooy euh, politique gis nañ ki nga xamante ni mooy euh, Ousmane Sonko moom mi euh, di candidat bu Pastef ci élection législative yi moom dafay génn semaine bële ñu génn. daf benn déclaration boo xamante ni ñu bëri dañoo jàpp ne déclaration boobu dafa violent moom saa yu génnee rek dafay woote à la résistance loolu nag ñu bëri dañoo jàpp ni dafa violence est-ce que génn Ousmane Sonko boobu noo ko jàngatee. waaw xaaji dem di wax rek santaar di wax laa xawla wala quwwata illa billah alil azim balaa ñuy dugg ci question bi. di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ko waral muy fukki bébé yi ak ñaar yi benn yi nga xamante ne bii moom ñoo ñàkk seen bakkan ci benn incendie bu nekk ci Tivaouane ci hôpital Maam Abdoul Aziz Sy baax di leen ñaanal yal na ñu yàlla yal na leen yàlla mot nañu motale seen daw ci àjjana si seen waajur yi nga xamante ne bii ñoom ñoo ko ñàkk yal na yàlla andil leen lu gën ci ñoom di wax nag ni dina ñëw ci question bi Alaaji Demba xam nga damay wax saa su nekk ñu ne ma ne Sénégal Ousmane Sonko bu ñu déggee ñu ne dafay vion ak yu demee noonu man gëw ma ni Ousmane Sonko dafa violent xam nga li tax dafa violent bu ñu delloo ay at ci ginnaaw ay yaa dix ans ci ginnaaw 2012 damay wax saa su nekk ma ni cas bi Ousmane Sonko taxawee. Mm-hmm. Macky Sall taxawoon na fa. moom bi doon wax naan damay bu fekkente ni bi dañuy woote troisième mandat damay jël sama mer gàddu dem ñu toog ci buntu assemblée bi bu laajee suñu bakkan ñu jox ko. Mhm. maanaam Ousmane Sonko il a joué le parce que APR nañu xam ne Ousmane Sonko seen stratégie la xam. parce que man nit ku violent bu fekkee ci kaal ci kàllaama ci la ñuy jàppee ne nit dafa violent man man giseewu ma foofu sénégalais bu nekk nag ak conviction waaye damay wax saa su nekk ma ne nguur gi nga xamante ni moom la ci la waa APR ñoo ne maanaam ku xamul seen stratégie dañ lay denc wala li nga bëgg doo ko am maanaam Macky Sall na dellu ci ginnaaw tuuti xam ne période bi Ousmane Sonko toll tolloon na fi te bi muy soxlaa jaral jaraloon na ko ne fii nga fi gisoon ñu yor ay boldeek ay xeer ak yu ne kon man bu fekkee ne damay wax ne Ousmane Sonko dañ koy wax ne dafa violent wala yu demee noonu man de gisuma ko man ci sama gis-gisu bopp. sénégalais nag aussi wax fi moo metti parce que dañuy dañuy dañuy nëbb dëgg fësal fen ñun Sénégal foofu lañu ñu toll léegi nag dañuy xool Ousmane Sonko diiran mu dugg ci ci politique bi maanaam amul luñ ko fi jiiñul amul luñ ko waxulul ji jiiñ nañ ko fi salafiste jiiñ nañ ko fi nekk waaw dañu parce que politique fan yi rek ngay dégg ñu ne Ousmane Sonko waaw parce que comme waa Casamance Casamance bokkul Sénégal. kon léegi lan moo tax ñun sénégalais yi ñu bëgg ñoo réeral ci benn côté wu Sonko dafa violent wala te pourtant nguur Macky Sall li fi nekk li mu tab ci ay ministres yoo xam ne ñoo gën a violent Ousmane Sonko kenn xamuñu toll. ay nguur yu capable Macky Sall ay nguuram nguuram. ñi fi nekk dañu capable. léegi par rapport ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko damay wax saa su nekk ma am naa ci benn ku may dégg mu naan waa Ousmane Sonko dafa jox nit ñi ñaam jooda ma ne ko moom dafa dof ki nga xamante ni bii xamul sa kër fi nga nekk xamul fan ngeen dox xanaa ñaam jooro bi da ko def ci ngelaw nañu bañ a nañu bañ a nañu bàyyi xel xam ni sénégalais yi du ñu ay dof bu ñu duggee nag ci wàllu mbirum Ousmane Sonko APR ak ñenn ñi nga waa pa waa APR Ousmane Sonko dégg wax na leen gis nga ñaata at la leen wax ne leen lii duñ ma ci mësa sonal duñ ma ci mës a gàkkal amul luñ ko ci jàpp c'est parce que luy problème bi muy ñun dañu nekk ci dëkk boo xamante ne bii parfois bu fekkente ni bi da ngay soxla benn mbir da ngay nekk di daagan baatu askan wi boo demee ba jot loolu fi mu nekk da ngay changer beneen méthode Macky Sall ñaata at la fi toog te Macky Sall fi nekk ñun faj mer ñun ni ñuy fajee mer baaxul parce que boobu bëgg nañ kut kut kut Abdoulaye Wade génn Abdoulaye Wade nag génn na fi moom moo fi sasoon amul beneen opposant boo xamante ni mën na jangante ak maître Abdoulaye Wade léegi nag yow soo demee 2012 nga toog ko ci nguur dem ba ñaata. nit ñoo xamante ni ñoo waroon jàkkaarloog ñoom anañu balaa élection yi mu dugal leen ci ruq. mu faagaagal leen. waaw waaw mooy amnistie na fi ma euh, Karim Wade. Mm-hmm. Khalifa Sall ñu dañ ko ci ruq. Mm-hmm. léegi kan lay kan lay jàng jàngoonte waatal léegi nag soo demee ba ci présidentielle yoo xamante ni bi yow kii mooy moom moo mu ngi seen première euh, présentation euh, présidentielle am. Mm-hmm. maanaam mu ngi génnee troisième. léegi yow sa bopp maanaam. enjeu bi yëpp ci yow lay ne parce que da ngay daf lay leer ne kii fekk sénégalais yi ñu ngi koy jox bopp problème day am te Ousmane Sonko damay wax saa su nekk maanaam man dama jàpp ne fi mu nekk mooy président. moom mooy président man dama jàpp ne moom mooy président. xam li tax mooy non président Sénégal xam nga li tax muy njiit bu ñu la dénkee benn mbir da ngay oser nit ki da ngay imposer sa bopp. kon su ma déggee bu baax dafa mel ni génn kii du Ousmane Sonko nekkul violent mais stratégie politique stratégie politique la parce que xam luy problème bi. ñaata at la nekk ci biir impôt et domaine xam na stratégie wu APR beneen bi ci des muy heure bu defee déclaration. Sénégal problème am. heure bu génnee laa la wax def def déclaration. maanaam ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp seen xel dootul daal seen furu fara day rëf rëfi kon est ce que nekkul ne waa APR waa ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar lu ñuy wax dëgg la Ousmane Sonko saa yu génnee def déclaration rek Sénégal kenn dootul nekkat ci jàmm. <laughs> dem ba man de waa APR seen i wax ak waxi xale bu ndaw bi laa gën a gëm ko waa waxi APR. waaw parce que xam nga lan mooy problème damay wax saa su nekk ma ne Macky Sall la. Mhm. xam nga vaar dafa xew. moom ñaata yoon lañ ko mhm. vaar. ñaata yoon lañ ko vaara parce que aussi tamit bu ñu jaawale gis nga tey ñun Sénégal ni ñuy suñu politique moo salte te damay wax saa su nekk ma ne politique nekkul loo xamante ne bi dafa xaraam ci lislaam parce que bu fekkoon xaraama xaraam na ci lislaam kon bari na ci ñoo xamante ni duñ politique damay wax saa su nekk ma ne yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cent vingt quatre mille prophètes yi yàlla yónni yonti yàlla Muhammad la mujjee yónni te pourtant polo politigal ko moo tax tey ji ba muy woote wootewul fa mu dëkk tey ji ñu bañ a bàyyi xel xam ne ñun fi mu nekk politique gu xeet moom nekk moo nekk Sénégal jamono jii. Mhm. politique gu waaso. politique gu xastante. politique gu waxante lu ñaaw. man nag loolu jaadu na. non déggoo li ma la nee naa la ñun suñu baa ñi ñuy politique yi moo salte yaa ngi dégg moo tax nag bu fekkente ne bi nekk nañ ci Sénégal goo xamante ne bi fi mu nekk nii dañuy am kumba am ndey ak kumba amul ndey. te fi mu nekk nii ronkoñi baadoole moo fi siim cerey buur dañu del moment boo xam ne yow doo xam fan nga féete boo déggee ñu ne Ousmane Sonko dafa dafa violent te dafa ci kàddoom Ousmane Sonko jàng na xam nga li ci li xam na li ci yee fitna mm-hmm. man boo xoolee ni li ci bari li may comparé ak moom da nga ciy gis koo xamante ne bi day ŋànk nguur nekk kilifa waaye nag yàlla bu la defee kilifa yow doo opte ne yow kilifa nga maanaam ndax ak ñoo xamante ni ñemewuñ ñem ñemewuñ dëggal seen bopp boo xoolee tey jii chaque jour que Ousmane Sonko bu defee conférence de presse wala ñu daal di def bande annonce ni vingt la war a wax wala dix sept mm-hmm. bureau yëpp tëj na. maanaam ñëpp koy ñëpp non non ba ci biir APR Ousmane Sonko def wax arrangé wu leen parce que nag damay wax saa su nekk de. ma ne man depuis bi mu commencé wax ba léegi amul mbindeef moo xamante ni bi génn daal di défier Ousmane Sonko ne ko li nga wax am na li nga li nga wax amul kon tey maanaam xam gum leen xam ak stratégie boo xamante ni bi moom noonu lay politique yi gis nga politique ay pion la rek dam yee la léegi yow soit que noo mën a def ba déstabiliser déstabiliser adversaire politique danga ko def waaye boo xoolee ci ci ci maanaam ci profilu Ousmane Sonko man bu ma déggee ñu naan dafa violent da ngay ree ba xam nga li gën a métti ci Sénégal. Mhm. maanaam man xam nga kan laay daw muy neex sedd ray miikar ki nga xamante ni bii li dana xam fi mu lay jaar pour ray la te du la ko wax. mën na nekk ak yow léegi maslaa yow toogandoo yow lekkandoo yow naanandoo yow waaye bu génnee paaka balee rek mën na koo daas joxe ko. Mhm. par rapport à Ousmane Sonko Ousmane Sonko nekkul ne moom ci boppam. moom moo war a defal Sénégal nee naa bis bu ko yàlla joxoon nguur gi tey jii. Hmm. ay Ousmane Sonko yu bari la ñuy soxla. maanaam ay Ousmane yu bari la ñuy soxla. moom dong ci kàllaamaam ci ci gëm-gëmam. Ah, ci ci ci ci gëm ci ne moom moo war a développer Sénégal du benn Ousmane Sonko rek boo déggee benn usmaan Sonko. Hmm. nguur benn lam ci cin kese du yëngatu. boo déggee ay Ousmane Sonko yu bari la ñu war a defar sa parce que boo euh, yeewi askan wi. Hmm. waa Pastef. ak ñi nga xamante ni boo xoolee yeewu askan wi xaaj bi ñi ci nekkoon yëpp ñii ñi ngi woon ci PS. ñii ñi ngi woon ci APR. Mhm. comme ñu jël ci un certain Moussa Diop bi ne woon. Moussa Diop euh, mhm. bi ne woon APR. Mhm. léegi rangé wu na xam nga li tax. damay wax saa su nekk ma ne Ousmane Sonko. mais musaa Moussa Diop est ce que nekkul loolu li nga xamante ni mooy prés kii di président de la République lu mu ko limogé looloo ko métti looloo tax mu dem fari ki nga xamante ni mooy euh, Ousmane Sonko. waaw politique moo baaxoo noonu ñaata nit lañ fi limogé. ñaata nit lañ fi limogé mu dem rangé wu ci beneen part boo xoolee ci jamono jamonoy maître Abdoulaye Wade amoon na fi bari na fi mhm. transhumé bari na fi léegi un certain Moussa Moussa Diop bii mhm. moom moo mujj mhm. euh, Moussa Moussa euh, kii nii maire parcelle bi Moussa Sy ak ñeneen ak ñeneen Bamba Fall fu mu ne woon Bamba Fall moom bii paas sax muy demee euh, euh, kii ci coalition gëm sa bopp mais après dafa dem Benno Bokk Yaakaar. léegi nag Bamba Fall période bi ne dafa lekk maanaam dafa lekk ñam wuñ warta lekk. maanaam dafa sangoo garabu jàmbur. boo déggee dafa lekk lu mu warta lekk mooy soo demee ba toog ci conférence de presse. bu ne dàng àddina de la seetaan. ngay wax téléphone xamoo ni micro mi ngi la tiim. loolu weeru gën gënu ko rëy. moo tax ma ne la nañu nañu bàyyi xel. nañu nañu bàyyi xel ci bagage Ousmane Sonko Ousmane Sonko doomu aadama la comme ñëpp waaye damay wax saa su nekk ma ne man Ousmane Sonko li ko suñu borom defal bu ko defaloon keneen bu boobaa tam la ñu war a wax ci moom dañ koy tax ñoom nee naa la léegi ma ni la booy xool Ousmane Sonko mooy président Sénégal jamono ji ñu nekk parce que heure bu réew mi amee problème ak fu mën a nekk mu def moom mi ngi présent. moo xam fu mu man di nekk ñaata nit nga fi gis ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ciy demee noonu wala ci wàllu mbirum problème day dem xooli boppam kon déjà kon rôle bii président dox mu ngi koy dox te pour nga gis ko fenn problème mën na yónnee ay ministre te ministre waa APR ñoo gën a nekk caay caay lu yàlla bind ci réew mi nekkul dafa bëgg aussi euh, li nga xamante ni mooy présidentielle yii di ñëw mhm. bëgg ñu fal ko looloo tax muy def lii waaw xoola qu'importe dama la wax ma ni la fii Ousmane Sonko njëkkee ko fi te du ko fi mujjee nañu dem ci ginnaaw depuis jamonoy Senghor ba léegi amaana ñun fekk ñu ñu judd bu ñu fekk ñu judd tam lu ndaw lañ ay histoire lañu dégg di gëstu ci mag ñi boo xoolee ci jamonoy Senghor ba léegi jamonoy Abdou juuf ba maître Abdoulaye wadd nguur PS gan ban nguur moo leen gënoon a yées te maître Abdoulaye Wade bi avant muy jot nguur gi te mhm. tëj nañ ko fi kaso amul luñ ko defalut amul luñ ko toroxalut mhm. léegi toroxal boobu ñu ko toroxoon nag li tax Macky saal moom damay wax saa su nekk ma ne président la par défaut parce que li problème bi muy génne nañ ko premier ministre parce que amoon na accrochage moom ak Karim Wade. mais dafa rampé nag Macky Sall dafa rampé. non moo tax ma wax la ma ni la parce que bi mu fi nekkee yaakaar naa newoon na fi ministre des mines xaw ma yu demee noonu. léegi nag yooyu yëpp bu fekkee da nga koy nekk nga génn ci nguur génn goo xam ne dalay leen làq doom dóor doom la. Sénégal moo bañ ku toroxal doomu aadama. te yàlla tamit buggul ko toroxal doomu aadama parce que bi muy wax naan wa qul naa lil malaa'ikati isjudu li aadama fa sajadu ilaa iblisa wastakbara wa kaana minal kaafiriin maanaam pour xam ni doomu aadama cër bi ko suñ borom jox amul kenn koo xamante ni bi jox na ko léegi nag moom depuis 2011 2012 parce que Macky Sall nee naa la nag lu bu nekkatee président ak lu mën a xew réew mii du ndakaaru kese Sénégal du ndakaaru kese Sénégal du Touba kese. Hmm. Sénégal du Tivaouane kese Sénégal du Kaolack kese am na yeneen sous région yoo xamante ne bii bu ñu lekkee balaa ñoo lekk du suba ci heure bii. am na ci ñoo xamante ni bii ci sous région yi bu ñuy faju génn di faju ji cay. 5 di du matin da leen fekk ñu takk seen sareet pour dox teel a yegg. dégg nga oustaz euh, nga xamante ni moom la Ousmane Sonko yëkkati 200 hmm. sénégalais jóg dem déloger Macky Sall kii Macky Sall la. Hmm. est-ce que kàddu war na ko boo ko jàngatee yow. waaw xam nga damay wax saa nekk ma ne nit ku ne ak gëm ak conviction nit ku nekk dafa am fu muy fu muy teg boppam am na ci sénégalais yoo xam ne bu fekkee ne deux cent personnes rangé wu nañ ci Macky la maanaam am na cinq cent personnes yoo xamante ni ba léegi ñu ngi resté sur Ousmane Sonko sénégalais fi mu nekk nii nee naa leen gëma gëma gëmatuñ doomu aadama à cent pour cent xam nga lu ñuy gëm mhm. intérêt la ñuy gëm parce que boo demee ba dégg ñaata yoon semaine yi nga fi dégg ñu ne waaw da ngay dem xaw ma liste euh, enregistrer sa liste mhm. pour aide présidentielle yu demee noonu yow yëpp yooyu yëkk pour convaincre Sénégal parce que li ko daloon ci législative yi ci euh, locales yi moom lay bañ mu dal ko ci législative yi kantaa nag addina bi fi mu toll mhm. maanaam lépp maanaam communication la sa communication bu baaxul musiba la te Ousmane Sonko maanaam stratégie communication bu ko nit comprendre wu ngay jàpp ne kii dafa violent mais Ousmane Sonko jàpp nga ni communication bu baax lay def nii. non sëñ bi gis nga tey communication. ma wax la man lépp loo mën a def ba déstabiliser sa adversaire maanaam baax na léegi nag ci kaw ñi ngi wax ne dañuy violent wala violent parce que nag dinaa la ñaar bari ci ñoo xam nervi yi kan moo ko fendi ah, nervi yi day nguuru Macky Sall lañ koy. léegi loolu lu ko gën a violent te ñi fay nervi yi kenn waxu ci kenn gisu kenn kenn kenn déggu leen ci. ñaata boo déggee mu ne nañu génn ci askan wi sa parce que lan mooy problème Sénégal gis nga jamono ji jeunes yi ñoo sonn jeunes yi sonn nañ dem bala ngaa xam ne jeunes yee nga xëy 5 heures du matin yeewu di dem danga ci gis koo xamante ne bii maanaam ay diplôme yu diis yoo xam ne fu mu ko présenté tey jii biir Europe maanaam dañ koy jox indemnité jox ko loo xamante bii bi signéel ko loo xam ne ay doomam lépp mënu ñoo jël en fii da nga fiy gis bërëm diplôme yoo xamante ni ñoo jaaykatu ndaamaraas yi ñooy jaaykatu màdd yi ñooy jaaykatu caaf yi mm-hmm. léegi yow nga dem ba sénégalais ndaw yi nga xam ne ñoo war a def ëllëgu réew mi révolte ngay jur parce que ñaata yoon ngay dem ci bureau Sénégal yi fii ni ay paa yu màgget ba yore yat di sukkootu ngay gis maanaam alal ji nga xamante ne bi moom la Sénégal moom tey jii mm-hmm. ñu koy jël di ko sotti di ko di ko def ci ñoo xamante ni tegul fenn parce que tamit léegi ñun bu fekkente ne bi dafa am benn benn benn système politique bu Ousmane Sonko ñëw ne nii lay doxee bu fekkee ne Ousmane Sonko dañ ne dafa violent kon xanaa Barthélémy Dias mi nga xamante ne bii moom moo nekk ci yeewu askan kon nan lañ ko war a tuddee moom. kooku daa mel moo gën a violent kooku moom day toog wax li nga xam ne moom la gëm waaye pourtant ba léegi euh, euh, euh, Ousmane Sonko génnewul fenn daan ne rey leen nangam wala xeex leen nangam mm-hmm. am nañu droit nag marche parce loolu. ci sarti réew mi ñoom ñoo ko maye pour nit ki nga xamante ni bii am na lu ko metti li lislaam di wax nag li la metti bu fekkente ni bi amoo doole pour jooye ko da nga koy metti lu ci sa xol léegi nag ñun dañu doole moment boo xamante ni bi nee naa la Ousmane Sonko bu fekkente ni bi dafa génn benn cinq minutes def ko conférence de presse télé yëpp dootuñu tàkk léegi oustaz li nga xamante ni mooy élection législative yi booy xool ay weer rek si des mm-hmm. ñu ko ba ñuy déposé li nga xamante ni mooy liste waa yeewu askan wi dañ leen bloqué woon mais tamit waa Benno dañ leen bloqué mais nag dañoo jékki-jékki gis liste euh, yeewu askan wi ñu validé ko te li ñu ko validé xam nga nekkul ñenn ñu waa Benno parce que ñoom ñoo yor ñoom ñoo yor ko ainsi marto yi mooy dem ku ñu fëggul du dem est-ce que nekkul loolu la moo tax waa Benno def ko pour ñu valider liste Benno Bokk Yaakaar ndax ñu mën a valider ñoom itam seen liste waaw xam nga tey ñoom ñoo ñoom ñoo njëkk a xeex ci mbirum validation bi ci mhm. ñaa signature yi waaw xam nga tey ji boo xoolee ñoom bu fekkonte ni bi gi moo tax ma ni leen nit ki xam fi nga war a waxee fan xam fi nga war a génne dafa baax ñoom bi ñu commencé ruumandaat waaw entre Khalifa Sall mhm. waaw Barthélémy Dias mhm. kenn ki ñu war a dugal génn kii mhm. ci la Ousmane Sonko ñëw leeral carte gi affaire parité léegi nag parité boobu bu fekkoonte ni Ousmane Sonko def ko fi mu nekk nii APR maanaam du nangu dossier wu yeewu askan wi pa ñoom parce que ñoom ñoom dañoo gàkk ci mbir mi ba pare. léegi nag gàkk gi ñu gàkk pour ñoom ñu dem. Mhm. coow bañ a am faw ñu coow faw ñu valider loolu. loolu politique la politique maanaam stratégie bu déggoo ma wax la ma ne la tey stratégie politique nit ki mën na koo xam. Mhm. dégg wolof danaan kii yor du sëqat gis nga APR li tax ma wax la ma ne def ci am ay miikar yoo xamante ne bi dañuy puus benn pion bu pion ba marché ñu bàyyi fa bu pion ba tàngee jër ni xal ñu rejet ñu génn moo tax ma wax la ma la tey boo xoolee kaaw Ousmane Sonko bu génnee def sorti maanaam sorti bi moom pourtant waxu violence bi mu wax rek la nit ñi gëm de mm-hmm. waaye waxul li waroon a xew ci réew mi tey mm-hmm. parce que boo demee ba dégg ñu daal di ne liste yeeyu askan wi maanaam ñoom ci seen biir mm-hmm. yeeyu askan wi entre Khalifa Sall entre Barthélemy Dias foofu tey jii nit ñi bëggoon nañ leen a juumloo ci ay wax. ay wax c'est vrai yàq yeeyu askan woowu te yari askan woowu dong donte Moussa euh, euh, Ousmane Sonko moo nekk ci bopp bi. Mhm. am na kilifa yu ci nekk yoo xamante ni bi gisoo leen. comme di Serigne Moustapha Sy kon tey jii dafa am yoo xamante ni nee naa la groupe. Mhm. foog nga ànd ak bool kàngami borom xam-xam gu ngank ba pare xam fi mu teg ay ay ay njabootam. léegi nag APR loolu la ñu manqué. parce que àndandoo jaayante tàqalikoo jëwante la ñuy dund. Mhm. parce que après ji jamono lu ci përee bëri muy politique bi ñu nekk nii. jamonoy intérêt jamonoy liggéeyal sa poche pour ëllëg la léegi nag jamonoy intérêt jooju boo fekkente ni toog nga fa yow ngay xeex ak ñoo xamante ne bii maanaam ñoom doole ji nga am amuñu ko kon yaa quelque chose yow li nga mën a xeexe say mbir say wax sa wàllu communication sa wàll declaration boobaa ñoom donte li ñu doon def pare woon nañ pour def ko pousse nañ pion yëpp dootuñ ñeme dañuy def recule mais oustaz est que euh, li nga xamante ni mooy surprise mën naa am ci élection yi. bu fekkente ne bi yàlla la ñuy waxal ci wàllu cadre politique gu Sénégal ni muy doxee. gëw ma ni fa yat wa daloon fa lay dalaat. maanaam. waa waa yeewi askan wi. Hmm. du may metti li ñuy dóorati. xam nga li pam nga tex bu xam nga boo déggee wax teguma ko. <laughs> ci gaa yi nga xam ne dañ naan waaw yàlla xamal ne ma lii yàlla xamal na ma laa hmm. loolu gëw ma ko man. man xam nga li ma gëm. Hmm. maanaam dafa am loo xamante ni bi ligne éditoriale yàlla buy nit ki di jaar. sénégalais dañoo dem ba benn xamante bañuñu Macky Sall ak loo mën a wax tey jii man nee naa la nguur pour nga def analyse politique wala ci wàllu actualité faw nga xaw a tempériser yu bari Macky Sall doo ko jëlee xalab ko mel ni ba mu toogee Sénégal bi rek dafa dara lu baax def na lu baax ci réew mi nit ki xolil xaq walaw kaana moran da ngay wax dëgg donte dañuy teg paaka sa put waaye nag tey jii da ci am ñoo xamante ni bi ranking bi ñuy waxee ak ni politique du doxee dafa dafa wutee ma ne la dafa am yu xew ci at ci Sénégal ñaari at yu ñu génn wala at mi ñu génn mhm. Covid bi jaar na fi mhm. ñi ngi naan jeex na wala jeexul ñaata milliards moo dugg ci Covid bi. mille milliards kay léegi question ngi foofu may teg. Mhm. ndax te aussi depuis ñu daal di fer ñu ñu ñu ñu ñu wax mbirum Covid bi. di ñaan yàlla nag wax ma waroon ubbee muy Cheikh Mouhamadul Mountakha. mi nga xam ne moo ñu gane si woon. boroom mbég mi. yaakaar naa ne bi mu ñëwee yëndu keroog ndakaaru mhm. mbir feeñ na. trop parce que bari na dëkk yoo xam ne tam te keroog mhm. dafa mel ni yaa ngi Europe. ci àjjuma ni ñu daan dundee àjjuma. naaj bu tàng mhm. moom tey jii li mu def ci. Euh, wàllu mbirum corona bi. ak yi nga xamante ni bii ñi nga xam ne ñoo demoon ci mbënn mi ci gaal gi ci ci gaal gi di immigré. lim leen dimbali lépp. pour pourtant moom xaarul nguur ci dara.